Mamadou Wane ñu ngi lay di la dalal si réew bi ah, waaye maa ngi euh, uh-huh. ngay vice-président FENAPES FENAPES muy fédération nationale association parents d'élèves et étudiants du Sénégal tey ñu gis ne université yëngu-yëngu yi bëri na du rek benn université mais université yu bëri jamono ji ñoo demandoo un mouvement d'humeur dinañ dellu si ci lu ko waral mais tey ji ban commentaire nga ci def commentaire bi ma ne dama bëggoon wax ni que actuellement au Sénégal. Mmh. nous avons des problèmes au niveau des universités. am am nañu problème. Mhm. Euh, ci suñu université yi. Mhm. mais problème bi nekkul le problème de l'université en tant que tel et tout de suite. waroon nañu am université de Dakar boobu qui était prévue pour trois mille étudiants depuis du temps colonial. et resté université de Dakar seule université alors que il fallait prévoir dañu waroon prévoir ay université yi comme ubbi nañu vannes yi élémentaire tout le monde doit ñëpp dañu war jàng mhm. kooku c'est normal université collège yi pro collège de proximité lycée de proximité tout le monde donc est à l'école pour que véritablement suñu ñëwee ba am ba ñu terminal mhm. fu ñu jëm mhm. loolu moo indi problème bi yëpp fu ñu jëm léegi ñu ñëw ba terminal def seen examen fu ñu jëm Dakar fees na Saint-Louis fees na les universités qu'ils ont université yi commencé na commencé nañu Kaolack am na donc mais Kaolack aussi fu ñu nekk ñu ngi Fatick ñu ngi Kaffrine dans les villes réparties réparties dans les villes mm-hmm. suñu ñëwee Bambey Bambey ubbi nañ ko mm-hmm. centre régional euh, universitaire la la ñu prévaroon foofu mm-hmm. bon finalement c'est devenu université université bi tabaxuñu ko pour université donc élèves yooyu étudiants yi nekk foofu ñu ngi ci ay ay ay ay dëkk dëkk yu tuuti mm-hmm. ñu tasaare leen ci dëkk yu tuuti ñu ñu di jàng xam nga yooyu c'est pas le c'est pas un environnement propice pour étude étudiant ma ni lu nekk ci suuf mm-hmm. lu nekk ci suuf ci lu ñuy revendiquer mm-hmm. soo ko analyser bu baax da ngay xam ni yooyu du les raisons fondées les raisons fondées c'est que nous sommes dans une ay situation yi fu ñu nekk léegi nii situation ba nga xam ne il faut que ñu gaawantu defar suñu université yi correctement mhm. ça c'est un mhm. dañu war seet nañu war dialoguer avec les étudiants mhm. ñu ubbi dialogue bi set nu ñu su problème amee problème dafay am rek problème amee dañu war toog autour d'une table discuter ko seet nuñ koy nuñ koy traiter bañ perdre heure yi parce que heure yi ñu koy perdre suñu nekkee dehors quantum horreur bi dañ ko war régler mhm. euh, les crédits sont à régler te tant que régler woo sa crédit mënoo valider ce diplôme mhm. donc ay élèves yi dañu nekk foofu ay at yu bare de à la place de deux ans ou trois ans ils risquent faire six ans sept ans donc yooyu dañ ko war a su dul loolu chaque année ils auront des problèmes mhm. il faut que ñu seet nu ñuy defaree ci université yi defar ko mettre l'accent sur ça parce que le développement ou la réussite d'un pays dafay dépendre ci école yu ngay préparé école yu ngay université yu ngay préparé. Mm-hmm. soo ko defulee bu baax ba nit ñi am ay alibi pour dem xam nga étudiant balaa ma ñëw foofu âge bu ñëw ci université âge contestataire la. Mm-hmm. âge ba nga xam ni dafay wut rek lu muy wax dafay contredire la ñuy wax soo yooyu daal da nga war a éviter. Mm-hmm. da ngay préparer yooyu pour éviter que yooyu génn. mais aux élèves aux étudiants je bien. étudiants yi nañu xam ni quel que soit alpha ñoom rek ñooy perte. Mm-hmm. ñu nekk ci mbedd bi waruñu dem di làkk. Mm-hmm. suñu làkkee ñoom rek ñoo ko perte davantage parce que déjà lu fi am doyul suñu nekkee di ko yàq. xam nga seen bopp la ñu yàqal. seen bopp la ñuy ñu nekk ci kaw wàll kii yooyu ñooñu dem nañu seen affaire. Mm-hmm. ñoom ñoo ciy des te ñoom on les attend. ñooñu. ci ñooñu la ñu compter pour ñu jël réew mi yóbbu ko fu gën baat ñu nekk. Mm-hmm. ci ñoom la ñu compter. dëgg soo fekkee ci ñoom la ñu compter pour defar réew mi def ko fu mu baax fu mu yi du en restant dehors en faisant des grèves en en perdant des crédits et des et, et ku perte yooyu da on on n'a plus compté sur toi. or ñun ci ñoom la ñu bëgg compter pour jëlaat réew mi subu. Mm-hmm. donc su ñu nekkee ci mbed bi di wala lu ñu commencé woon tuuti lu ñu amoon ba tabax defar ñu dem nekk ci di ci yàq xam nga yooyu yooyu aussi c'est pas réfléchi mm-hmm. bu ñu yàq nañu exiger ñu dem ci ci ci négociation dialogue ñun parents laajoon nañu recteur bu nekk Bambey mm-hmm. am na un régional à Diourbel waaw déposé na lettre de euh, euh, d'audience ci ci ci recteur bi mm-hmm. mais ba léegi recteur bi tontuwul ñun on était prêt pour ñu dem foofu. Mm-hmm. discuter ak ñoom def une délégation une commission ñu dem rencontrer ko mais langul répondre yooyu xam naa ni y a des problèmes ñu wax naa ko ci français lu ci nekk. Mm-hmm. dafa complexe. dëgg lu ci nekk am na ay entité yu bare ñoo composé université. Mm-hmm. assemblée de l'université le recteur coiffé. mooy chef bi mooy répondant mooy l'administratif générale. dëgg la mais à l'intérieur il y a des entités et des corps il faut nga négocier ak ñoom soo fekkee am nañu problème ak ak ñu génn grève mhm. il faut nga dialoguer ak ñoom il faut ngeen ah, ah, retenir un consensus. Mhm. ngeen mun toog ak le recteur ngeen seet nu ngeen di def. Mhm. mais soo fekkee nii le recteur bi munu ci dara en réalité je je reconnais munu ça c'est c'est c'est une vérité aussi mais recteur mënul régler li problème la soo fekkee recteur bi mënu ko imposé dialogue lay doon rek uh-huh. il faut que ñuy dialoguer ak ñu nekk ci UFR yi chef UV UFR yi uh-huh. wala chef faculté yi directeur ces directeurs du UFR ñu discuter ak ñoom uh-huh. ñu ba ñu d'accord ci dara ñu soog seet le recteur parce que le recteur il supervise il est le chef mooy chef administratif yëpp mais am na yoo xam ni il ne peut pas régler ça. ndax jàpp nga ne dina yomb waxtaan googu leen ndax déjà yéen ñi ngeen xam ne ay association de parents d'élèves ngeen bëgg ngeen waxtaan ak recteur bi mais ba tey amu leen ci tontu. étudiants yooyu la ndax ubbil nañ leen buntu gu ñu waxtaanee. waaw xam la université. Hmm. quoi qu'on dise la personne morale administrative c'est le recteur. waaw buntu d'entrée bi la dëgg la. su ñuy accepté woon ba ñu ñu muy recevoir ñu mu wax ñu problème yi lii la lii la lii la ñu xam ku ñu war a adressé ñu dem seet kooku mm-hmm. mais soo fekkee amuñu réponse lettre audience boobu mm-hmm. mais c'est difficile d'entrer dans l'université alors que tu n'es pas passé par le recteur loolu moo taxoon ñu nii dañuy déposer lettre d'audience suñu paree lettre audience bi na ñu dem seet yi nga xam ni ils sont impliqués dans cette histoire là de grève discuter ak ñoom d'accord mais suñu amulee réponse xam nga day day jafe. day jafe day jafe mun dugg ci université bi di dem di tâtonner ak les gens te xamoo sax ku ci impliqué ku ci impliqué. d'accord euh, tey il faut que moom mu nangu recevoir les qui sont là tu nous donnes une date nous nous li ñuy li ñuy li ñuy li loolu euh, li ñuy ñaxtu bokk na ci ñàkk respect franchise yi ak it seeni amicale yi nga xam ne dañ ko dissoudre wala ñu suspendre ko ak yi mel tax ba seeni moroom yépp yeneen université yi jàppale leen tey ndax jàpp nga ne li ñuy xeex euh, seen droit la. waaw le le ñëpp passé jaar nañu foofu. Hmm. xam nga étudiant ku ne jaar na ci étudiant. Mm-hmm. étudiant xam nga suñu laalee kenn rek prépare ta loolu moo taxoon man yi de waxoon naa ci depuis ANAQ-Sup. Mm-hmm. nañu seet nañu régler problème bi parce que suñ ko bàyyee mu law dafay atteindre yeneen université donc c'est le Sénégal qui sera euh, dans ces situations là. Mm-hmm. mais loolu wax ko depuis le dix huit le dix huit novembre. dem nañu léegi ba nekk nañu ba ñoom xam nañ ñu perte aussi seen camarade aussi duñ ko mun ko duñ ko nangu. léegi ils ont demandé pour sen camarade laaj nañu seen camarade jàppale leen pour que ñu mun leen tontu ci lu ñu bugg léegi léegi law na xam nga étudiants yi ñun tam no problèmes que nous avons avec nos nos enfants qui sont étudiants c'est que ñoom chaque année dañuy redu dañuy changer seen bureau mm-hmm. te suñu changer ñun su sa fekkee cette année nañu le numéro de téléphone et le nom du président de de l'amicale ou des. Euh, il y a beaucoup uh-huh. Bon, donc le président de, l'ensemble des étudiants, la coordination des étudiants. Uh-huh. ñu dem ba fin d'année ñu changé bureau bi te ñu ku jël. dëgg la xamatuñu ku ñuy ñu aussi di di tâtonner dans les universités. qui uh-huh. comptent des quinze mille trente mille. xamoo ko adressé wu c'est difficile. dañu war ñoom waxoon nañu ma wax wax naa leen nii su ngeen demee ba parce que ñun nous sommes vos parents nous représentons vos parents nous devons défendre mm-hmm. demee ba am d' abord changer bureau da ngeen ñu war informer ñu xam ku ñu war a waxal. Mm-hmm. su ngeen demee ba am problème balaa ngeen dem di mbet bi di taal wàll yooyu woo leen ñu. ñu mm-hmm. ñu ñëw discuter ak yéen d' seet lan la pourquoi vous allez à la am na ya xam ni. da ngeen ko laaj te du ngeen ko mus am. te du ngeen ko mus am. leen wax ni ñun on peut vous dire de ne pas demander ça parce que vous ne l'aurez pas. d'accord. da ngeen ko laajee amul. Uh-huh. d'accord. am naa la nga xam ni c'est votre droit su nekkee votre trois mu leen mun déggoo tu leen avec les autorités ñun ñu nekk intermédiaire. ñu dem essayer voir nu ñuy traité ak ñoom. d'accord euh, monsieur Wane mu am tamit ne moyen secondaire bi instant bi am na ay syndicat d'enseignants yu paralysé système bi euh, ndax li ni mel du tax quantum horaire bi atum ren mu gën a jeng. waaw xam nga quantum horaire ren yaa am na ñun daal luñ ci ragal dafa bare. lu ci bare. Uh-huh. lu ci nekk. Hmm. dafa bare. d'abord am na lu ñuy wax monitoring mhm. c'est-à-dire lu ñu discuter woon ba d'accord ba nekk en phase de d'exécution mhm. ñun fekkee woon nañu mhm. am na lu ñu d'accord woon ñun dañuy wax nii gouvernement bi lu mu demoon ba dem ba signé na seet nu mu ko même mënu ko régler tout de suite mais mën na ci effort ba nga xam ñun ñi sax on pourrait dire que lii def nañ ko lu des ci xaar leen ñu xaar mm-hmm. mais am na lu ci lu ñu bugg dugal lool bokkul woon dëgg loolu nag mooy mooy que l'année bi année bi dafa compliqué mm-hmm. ñooñ xam nañ ni année bi année gré année année électorale électoral mm-hmm. électorale locale yaa ñu ngi ñetti élection ñu ngi suñu kanam Mm-hmm. locales yi législatives présidentielles on agit c'est pas l'élève n'est pas concerné par ça enseignement moyen secondaire mm-hmm. et même élémentaire mm-hmm. syndicats yi ñu ngi laaj pour ñu jox lu ñu waxoon mais lu ñu waxoon yi am na luñ ci rax lu ñu waxoon yi moo di d'accord nañu pour envoyer des enseignants ya nga xam ni bëgg nañu def seen formation ci CFP yi yooyu ñu ngi si mais peut-être yi laaj ñu jox leen seen rappel rappel yi c'est long lu mu la ko wax yëpp parce que euh, y a aussi que le gouvernement a accepté de faire des choses presque impossibles les syndicats pour moi mënul nekk waaw kon daal yéen am ngeen euh, fu mu nekk nii ci tànge ci quantum horaire bi problème yi nekk mënuñu régler problème yi yëpp luñ ci munti am lañ ko téye dem jàngale xale yi suñ ko defulee au risque d' envoyer les élèves là en année blanche. Mm-hmm. te lu ñuy laaj mënuñ jot yëpp loolu xam naa ko. monsieur Mamadou Wane ma lay jaajëfal bu baax a baax.